nuy naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci yéenekaay yu ub li yéene kaay ginnaaw moodu bi man la coronavirus bi am na ku muy waaj a koor laa am na beneen sénégalais laa wax boo xamante ni laal ni laa ngi koy analyser sénégal set ni man a nga xam ni moodu moodu bi mooy sénégalais bi njëkk am bi feebar ëpp la sénégal set ni ma bu ñu sukkandikoo ci libération yéene kaay moom waaj yi nga xamante ni mooy ñaareel bi nga xamante ni nit ku ñuul la di moodu moodu sénégal dëkk foofee nga xamante ni mooy ca italie ay waay waay waay italie ñun fu jëm ak yéen moom it ña nga koy seet di xool ndax mbir mi dal na koom dee waa ji laa la wax laataa nu koy seet jaxasoo na ak nit ñu bare bare bare bare xanaa loolu mooy musiba mbaaba kumba ay waay xanaa loolu mooy mbir mi yegg si na Sénégal yow ay waay waay waay fu nu jëm ak lii mali waa Italie laa la wax toog leen seenub dëkk ba coronavirus bi jeex o oh. waaye itam gaañ yi képp ku ni cëpp aéroport rek yéen daal li ngeen war a def ca na mu gën a gaawe mooy ni ko nappuus yóbbu mettre ko la quarantaine xool ba ko dañ ko ba dem ñu dem Sénégal set ñëwaat ba tey ni ma boo motuwut nguurug Sénégal dinañ aj mboole seen luy événement religieux ma ne ko maara day taal yi looy wax nii wax kat ginnaaw moodu moodu bii nga xamante ni ñëw na te wàll mboole seen njabootam ay ay loolu doyati na fi mu toll nii askanu sunu gaal am nañ six personnes yoo xam ni déclaré nañ leen positif oh, oh. te kaat kese la woon de ñaar yoo kaat na ca fu nga xam ni fi mu toll nii am nañ lu ëpp neuf la wax ndax ñoom ñaar yi moodu moodu yëpp laa ku ci nekk ci ñoom laataa ngay egg ca hôpital ba jaxasoo ak ngi nit laa la wax interne ak externe laa la wax ca Touba itam moom moomee nga xamante ni mooy moodu moodu ba <laughs> moom ca hôpital ba mu njëkk a jawali laa la wax ñoom itam ña nga leen ber di leen xool laa la wax ba tax na nag Serigne Bass Abdou Khadre ni nag moom mi ngi déglu ñi nga xamante ne ñoom ñooy njiitum réew mi lépp lu ñu leen wax rek lu nu war a def ak lu nu war a amal ñu ànd kook ñoom laa la wax lu ci am ba des daal mooy duñ ci réeroo benn yoon tey màggalu Kazu Rajab gi dinaa moom du am waay waay waay waay waay waay waay événement religieux yi nekk ci sunu kanam ziar général bi nga xamante ne mi ngi war a am le 15 ay boobu la ziar la wax xam na ci sax benn waay bu yëkkati ay kàddu di fësal ak di xam le nii gaañi bu nu fommee ziar bi coronavirus bi dina tax ci askanu sunu gaay laa wax buñ bëggee coronavirus bi bañ am na nu bàyyi ñu jàkkaarloog sunu maam yi ñaan leen ay waay ndaw sàmba ba tax na kon moom noonu la gisee mbir mi waaye ba tey am na beneen événement bu rëy bu mag bu nekk sunu kanam muy lan Kazu Rajab bis booba tem bu nu sukkandikoo ci Sénégal set bu nu wattuwut laa la wax nguur gii dina ko àndal baa mu ñàkk ko amal sax kay ay kon moom président Macky Sall ma ngay fësal ak di le ni Afrique gii na fexe fexe fexe ba bu mu nekk këru feebar bile ay waay ndaw sama bu mu nekk këram laa la wax président Macky Sall la ngay woo moo leen seen africain laa la wax ci ñu vigilant moytu bu baax a baax xool naka la ñuy def rawatina nag ñi nga xam ni ñooy njiiti réew yi waawaaw président yi ku ci nekk ci ñoom xool say frontière bu baaxa baax a baax a a baax ñaaw nga ni ñu def ci jooji la jamono laa la wax Serigne Mountakha Bassir Mbacké yàlla na fi lool ti weer moom Serigne Mountakha Bassir Mbacké woon na ñëpp ci ànd maase xeex li nga xam ne mooy bile feebar laa la wax moom Serigne Mountakha sax fa mu tàmbalee mooy jëf jëm ci feebar bile laa la wax la mu ca jëf ndeysaan ngir jàppale nguurug Sénégal moom mu yëkkati lu toll ci deux cent millions ëpp loow ay la xëy la la deux cent millions laa la wax le deux cent millions laa la wax de te ko ci loxoy nguur gi laa la wax te itam di ci woo ñëpp askanu sunu gaal gi yëpp ku ci nekk ci ñun def dara jëmale ko ci feebar bi laa la wax yëkkati ko jox ko ñi nga xam ne ñoo yor wàllu mbir gi yaram eh waaye ndaw sàmm moo gën a woor de ñu dem en tout cas lu ci am ba des mooy coronavirus bi fi mu toll nii jaaxal na sunu gaal laa la jamono président Macky Sall ci boppam ma ngay artu waa sécurité bi laa la wax sécurité am ci kanamu presse bi yépp laa la wax naan leen bàyyi leen ñaaxarañ loo mu def li nga xam ni mooy liggéeyam sinap waaw waaw baña ba tey bu nu àddoo jëm ci wàllum troisième mandat bi am na juge bu wuyoo ci turu juge Ibrahima Dem moom itam yëkkati nay kaddu wax laa la wax la mu ca wax na am wala du am lépp lu ci mën a am daal àddu ca wutil sans limite laa la wax boo demee da nga gis mbir ma ma nga ni fa fës laa la wax ba tey sunu gaal 24 ni bi seen membre yi nga xam ne bokk nañ ci comité d'organisation di màggal de Kazu prévu le 22 mars 2020 laa la wax de ay ay ñoom ñooñee ña ngay fësal ak di feddali bu baax a baax seen volante ngir amal màggal gi nga xam ne mooy màggaluk Serigne Fallou Mbacké donte sax am na ñaari cas yoo xamante ne ay cas yi coronavirus la yu am foofe ca Touba nit ak jabara muy moodu moodu boobee nga xam ne moo ko wàll soxnaam teewul nag ñu ngi wax di fësal ak di xamle ne màggalu Kazu Rajab gi lépp daal nañ ko jël teg ko ci loxoy Serigne Fallou ay ndaw sàmm moo koy sàmmal boppam ñu dem ci jooju la jamono laa la wax am na ab ñaseen buy fësal ak di xamle ni mboole seen ku bokk ci kër Baay Ñas da xam ne coronavirus du la laal eh waaye ndaw sàmm nga ma maa la ko wax ba tey sunu gal 24 ni ma joueur bu nga xamante ni siiw na ci àdduna bi yëpp mën a football lool di Cristiano Ronaldo moom itam placé nañ ko en quarantaine laa la wax foofee ca Portugal looy loxoy la la la wax club mi nga xamante ni

daa di faatu la ko faatu nag mooy daa yeewu baatam laa la wax oho pandi oy way way way way way ci ak garab laay laay la laa moo lu jar li ba tey ñu daal di daw ak yow jëm foofe nga xam ne mooy ca université Cheikh Anta Diop ñaari étudiants yi nga xamante ni kenn ki mi ngi sant Badji ka ca des sant Sonko ñoom ñaari étudiants yooyu kenn ki juridique lay def ka ca des moom ci jëmi boppam laa la wax yamba joojee ñu leen jàppee dañ leen a fekk ñu teg ko tas ko laa la wax di defar <laughs> di degré na la xamal degré na rek nañ dem. waaye nag ka ca des la wax di Sonko moom daa dawoon waaye nag mu bëgg a récupérer la nga xam ne mooy saak boobee. waajee muus déglu ma ma wax la li waa ji def yow waa ji ci boppam laa la wax ba mu bëggee récupérer saak ba dafa daal di dem ndax kat sac ba amoon na quatre-vingt-dix-huit mille yoo xamante ni dañ koo dagg laa la wax yii cinq mille yii deux mille yii mille francs eh waay ndaw Samba ba mu àggee laa la wax présenté wu daan ni man maay chef Sonko eh waay ndaw Samba ngir récupérer sac bi gars yi daal di koy peese jox ko mbir mi laa la wax ba pare top ko eh ci naka noonu la ñu dem ba xam ni waa ji du chef Sonko mook beneen waay bi la ñun leen napp wuus yóbbu laa fi ñu toll nii tembe may wax ak yow ña nga ca kaso ba cey cey cey étudiant yi ñu dem réew mi bëgg a wàcce coronavirus ngeen bëgg noo rek yàmba ba tey ñu gàddu wax ci mbirum Diop Iseg ak Jaynaba mi nga xamante ni moom mooy ba seen petit gàlle eh waaye daw samba Diop Iseg ba tey mbir maa ngay wéy di metti di fës ci moom waaye mën na ne nag ño nga wax wuti ca négociation yi laa la wax waxtaan toog waxtaan xool na la ñuy def ba juboo ci kawi kàddu ba tey yéen a kaay yaa ngi fësal ak di xamle ni ñoom ba néew ko da ngay ñëw takk ma boo bëggee ma baal la eh waaye ndaw Samba ak yomb moo yow yow ba tey ma wax la jéyee ji nga xam ne moo am xofee ca Touba benn waay buy jaay ay fital laa wax ay arme <laughs> yow ay arme laa la wax de bëm bëm bëm bëm bëm waajoojee doon jaay benn client am arme laa la wax ba mu eh ginnaaw ba ma koy testé nag ko jël di di ko ba ni jamee nag mu ni laa la wax ba fi mu toll nii waajoo jee faatu na laa la wax ba yóbbu ko foofee nga xam ni mooy ca hôpital Matlaboul Fawzeyni wala néew ba nekk cey lii yow yow ba tey li jëm ci wàllum yàmbaa bi sans limite ni ma nag foofee ca Rufisque laa la wax tëggee ay waaye ndaw sàmba jàpp nañ fa lu toll ci deux cent quarante huit kilogrammes de chanvre indien deux cent quarante kilogrammes maa ko mbii mi ne ay lay lay la laa ku ka ko def nag du ab sénégalais waajoo jee ab étranger la ma ne na kookee nee nañ ko nappus laa la wax jàpp ko ndax la mu téye saafara indien moo bari laa la wax. ba tey foofee ca Mbour laa la wax. Sali benn booy bu am vingt deux moom nag moo daal di faatu ci wàllum électrique laa la wax ci courant bi la faatoo de ay la xëy la oh, moom ci jëmi boppam dafa am restaurant boo xamante ne dafa doon yóbbu courant di ko jëmale ci ab poto di ko yóbbu ca courant ba mbir mi maas ko la wax. moom ba ko mbir mi maasee ñu woo sapeur pompier laataal ñuy def la nga xamante ni moom mooy la ca war fekk na mu ñàkk bakkanam lay mbirum Assane ak Marème nee la ba tey wax ja yaa ngay wëy di law di dem ndax sax am na ca benn xaritum Assane bu wootee depuis Maroc laa la wax naan Assane mii li muy wax dara amu ci mës envoyé ab xaalis laa wax dërëb mësu ko envoyé ëpp law ba tey sax am na ñuy fësal ak di xam le ni paaka bi nga xam ne moom la utilisé paaka boobee Maroc la ko jënde laa la wax ba mu ko jëndee moom ba mu ñëwee la nga xam ne moo nekkoon objectif am mooy faat Marème Diagne tax na nag mu nax ki nga xamante ni moom mooy imam bi laa wax fexe ba dugal ko ci mbir mi rek ngir sàkkatoo ko ay waaye ndaw nga xam ni moo leen mooy la nga xam ni mooy kàddu ya waajuru Assane yëkkati jëmale ko ci mbir mi ñoom ànduñu ci benn yoon eh ci am ba des daal yéene baa ngi fësal ak di xam le ni Assane yónnee na ñaari yoon ngir ñu may ko jabar may mayuñu ko eh waaye ndaw sàmm ci ginnaaw bi la nu may Marème Diagne waa ji wuyoo ci turu Cheikh Faye est-ce que nekkul ni nag looloo merloo Assane laa la wax ay bu dee looloo ay bu dee looloo asan def nga loo xamul cay jigéen rek te nu bari lool doo wuti leneen ah mbir mi daal yéeme na te doy na waar lu ci am des daal mooy coronavirus bii bu naree kor askanu sunu gaal gi yëpp ñun fu nu jëm fu nu jëm fu ay waa Italie yi fexe ngeen ba tas affaire bi ci ñun rek te ku ko ca am doo ko teel a wax ñu faj la mu jeex. fii métti na métti na trop ci ñëpp. waaye ba tey rek askanu sunu gaal nañu tey te xam ni. kenn ku nekk ci ñun laa la wax ñëpp ñëpp ñëpp nan fagaru. moo gën a wóor de. ndax kat fagaroo gën faju waaye étudiants yi war na noo maytu yamba bi de. say laatir bu baaxee rek ba clavier ñu dem jàkkin